ci Khalifa jàngat ko ci Karim est-ce que aussi taxul moom aussi mu jël matuwaay yëpp. mais mais mais je su forcé parce que bu amee taxawaay je vous dis je vous dis Adja bu forcer ce passage bi c'est pas dans l'intérêt du Sénégal je le dis ñu ngi may dégg. Mhm. su force le passage c'est pas dans l'intérêt du Sénégal est-ce que monde bi ñu ñuy seetaan ko parce que mbir mi dañ ko xeex ba nga ñuy naan ñoom Mamadou Diop ñoom Fodé Ndiaye policier mhm. ñeneen quatorze personnes yooyu desi mhm. ñu contre un troisième mandat. ñu toog parce que ñun ñëpp a gagné ah Macky 2012. c' est avec euh, même sans le benn Bokk Yaakaar Macky 2012 allait remporter le tout parce que c' était un vent mhm. fort qui soufflait dans une direction. Ah, peut-être du nekk cinq pour cent peut-être. Mhm. mais ce qui est clair et net que y aurait eu alternance encore. Mhm. bu fekkee loolu ñun yàlla may nañu ñu gagné ñun ñëpp mais le président Macky Sall la ñu élire. moom xelam warul dem ci troisième mandat. da ko xeex bi ñuy def. parce que léegi bu mu mu toogee situation bi rek lu jig njaag njiitu réew mi la. ma ni moom la. Mhm. Ah, tension bi ngay gis nii. Mhm. moom la parce que mënoon na clarifier les choses très simplement. vous savez dans des dans y a des démocraties mhm. y a des démocraties xam nañu rakkaay ñaar la. xam na ni bii mooy bu mujj bi est-ce que coow gis nga ko fa. ñuy reyante dafa amul. mais buñ la ne dafa ne aujourd'hui est-ce que nekkul loo xamante ne aussi dafa am ñoo xamante ñoo bëgg dugal lool de coûte que coûte dans la tête des Sénégalais parce que plusieurs invités suñu leen laajee ñu ne non ñun ba léegi il n'a pas dit qu'il va se euh, présenter pour un troisième nit ñi ñooy nekk en en 2019 il avait dit c'est mon euh, second et dernier mandat il avait été clair euh, là-dessus Euh, peut-être il a eu des raisons yoo xamante ne moo tax il ne s'est pas prononcé euh, par la suite mais tey suñu toppee li nga xamante ne moom moo fi euh, jot am le président ba léegi waxul ni que il va se présenter pour un une troisième candidature gis nga les raisons du président mhm. nekkul au-dessous des raisons de, de l'État mhm. le président nekk la première institution parmi tant d'institutions mhm. de la République man wax ma war na prononcer warul prononcer wu ça je ne suis pas sur ça parce que amul sax benn loi bu koy obligé mu prononcé wu su ko nekk mën a call ba bés bu ñuy déposé mu ñëw déposé yëfam ñëpp coow li bëri ah oui oui y a aucune loi qui qui l'oblige à mm-hmm. sa candidature fu mu koy déclarer c'est au conseil constitutionnel voilà ça c'est un acte de dépôt su bëggee sax muy ne enveloppe bu vide <laughs> amul caution amul parrainage le greffier da koy jël ah. Ah parce que c'est pas lui qui décide day noté ne j'ai reçu une enveloppe vide sans caution bu cour bi di <laughs> conseil constitutionnel di di réunir les mm-hmm. sept sages là entre guillemets. Mhm. ce moment boobu la ñuy naan ah il y a de parrainage irrecevable. Mhm. waaw mais dépôt c'est un acte matériel mais je tiens à dire juste que leeral ko c'était euh, yàqul dara. parce que ñun boobu ñuy jàpp fii di di di xeex ak président Ablaye Wade ba mu fi toog Ablaye Wade ba mu toogee le président Ablaye Wade ba mu toogee en 2000 mhm. il a fait une constitution constitution Sénégal bii am ba léegi. benn la c'est la constitution de 22 janvier 2001 dégg nga nag yenn juristes yi di naan la constitution de 2016 ça n'existe pas mm, mm, mm, oui il faut mu leer ku fi ñëwati di la naan constitution 2016 ne ko euh, génnee ma ko tapel internet nga génneel ma constitution fu ñu ko bind 2016 ça n'existe pas il y a une révision de 2016 révision 2016 bi ñaari chose la si li ñu li ñu intéressé sur le nombre de manda et sur la durée des mandats président Macky Sall dégg ngeen ko mi ngi taxaw le président Kaboré en 2017 mu ni ce dont il était question c'est moins le nombre de mandats qui n'a jamais été touché que durée. la durée, durée. passer du, du septennat au quinquennat bloqué mhm. moom dafa renforcer li nga xam le président Abdoulaye Wade moom la wax en 2001 mhm. mhm. on ne peut être réélu qu'une fois mooy deux mandats moom mu ñëw ne ne nul ne peut faire plus deux mandats consécutifs la même chose la français bi changé mais c'est la même chose donc le nombre de mandats n'a jamais changé c'est la durée du mandat qui ñaari rakka dong dama ku fi jël tabaski ñaari rakka dong nga fi def defee imaam bi na jógee mag rakka bu nekk juróom-ñaari kabar bu njëkk bi soo bëggee mu gën a gudd nga def ci ayatul kursi bi jàkk rakka bu deuxième bi juróomi kabar la mu gën a gàtt nga def ci wallahu ça n'empêche ñaari rakka dong ngay def mhm. ku fi teg ñett xam nga loolu léegi ngay dégg mhm. subhanallah ngay dégg mhm. donc moi je trouve que le président Macky Sall lu ko yàlla may sa aussi après lu ma lay wax ci droit kenn mën na ko fi dindi parce que c'est pas la durée du mandat qui détermine le nombre de mandats quinquennat c'est la confusion que vous avez pour ce bi sax damay taxaw foofu en tan que juriste. un peu juriste mais côté côté aussi euh, mm un peu politique bu fekkee je pose une question mm-hmm. bu fekkee le président Macky Sall ci référendum 2016 bi ñu naan wi ou non da la wóor la euh, ko mm-hmm. bu fekkee waxoon na sénégalais yi bu ngeen koy voté wii j'aurai droit en un troisième mandat. Mhm. ou à un deuxième quinquennat yow doo ko voté man du ma ko voté et pourtant j'étais dedans bu ñu fekkee ne tey ñi ngi bëgg dugal troisième mandat te moom de tool la ko basé sur le plan juridique moi je dis que y a une escroquerie politique. Mhm. mooy nit ki xamoon na lu muy def ne Thiel su ngeen ko nee wii rek ma xëcc ko fële parce que ne woon nga yow pare nga. 31 décembre 2018 ça a été beaucoup plus lan la foox et ce n'est pas c'est l'institution qui a fait son discours à la nation mhm. et qui s'est assis face ak yéen les journalistes ñu pose question lan la wax maa ngi sama premier mandat mhm. mooy bu septembre parce que en 2018 la ko bu yàlla defee ak samay réalisation ngeen jox ma bii di ñëw ñu dire ce sera 7 mhm. plus 5 il faudra partir 7 plus 5 il faudra partir les troubadours yi ngay dégg temps ay pétition ay grand meeting payé à <laughs> la ñuy wax suñu kilifa suñu imam nee na 7 plus 5 on s'en fout boo xam jarul dóor sama doom. 5 5 la ñuy wax yow mais moom kilifa yi waroon na waxee eh, jàpp leen si sama wax. Mhm. boo waxul dara wax ji neex na ko.